amul wàññi. a ah, yow mercredi. amul dara loo xam ne dañ ma ko wàññil. merci CNG ak police ak amul lu ñu ci wàññi ñiy fay samedi li ñuy fay lay fay. Hmm? wallaahi léegi nag. Hmm. Bira vraiment fa laa jaaree di ko remercier. Bira Sène waaw parce ñoom ñoo créé woon les mercredis de CNG. de CNG waaw. àddina di dox ba mu récupéré ko. Mm-hmm. récupération bi mooy bu ko neexoon ñu bañ ne du ñu joxe làmb mercredi. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mais vraiment dafa ma yombal loolu. comprendre la quoi. yaa ngi jàpp ci mais dañuy wax naan moom. man day wax dëgg yàlla bëgg naa déwén. yàlla na ko fi yàlla teg nag ba pare. waaw parce que gars yaa ngi naan ay mandat yàlla na ko fi yàlla teg ko fi dese bëriwul rek coow loolu. waaw loolu ay wax la rek mais tey man man na concerné bu ma doon wax ci bilan wu CNG damay wax mention spéciale. bilan bi ñu def ren. waaw man. ah ak coow lu bëri li ñuy di coow dañ fee war a jóg li ñuy dagg li ñuy naa. ñuy coow lu ñu ku deful dara du ñu la dagg. Hmm? waaw ku deful dara. waaw du ñu la dagg. Ah. ñiy wax ñëpp nañ maa dagg lan nga lan lañ def. Hmm? dañoo def ñu dagg leen. mais ñi ñi ñu daggul est-ce que wax nañ ci dagg. waxuñu ci dagg hmm. làmb dafa am nu muy doxee. man boog man li may wax man na concerné. Hmm. yenn saa yi plateau ku nekk wax. waaw man dama ne CNG de lutte bii bilan bi ma gis ren. Hmm. mention spéciale. te bu doon man maay fal ñoom laa fi tegaat. yow boo doon fal biraa nga fiy tegaat ak moom laa fiy tegaat ak équipe am. te kii falaate bu ma nangoon bu ma dégloo. ma ne ko teg fi biraa ak équipe ndax li tax nga wax loolu mooy danga nga jàpp ne biraa dafay day liggéey moo équipe am. day liggéey ba pare def di di partager ak ñi nga xamante ni mooy waa làmb. waaw jege na waa làmb de moom. man moom fi ma ko li tax ma xam ko. Hmm. man Bira amuñu sens interdit man ak moom. Hmm. bu sax na ci Ouzin production. Hmm. mu ne parce que yenn saa yi mu mais Ouzin làmb ji dama ñëw gis vraiment stade bi feesul ba am problème. am xam nga ku ko xamante ni déjà yow mi ngi lay wax loolu. Mhm, ci la mi ngi lay yéene. Mhm. beneen bi ci des mi ne ma mais gis naa keroog nga tëgg même pas quinze nga tëggaat est-ce que doo ko xëcc tuuti nga gën a am temps de préparation. Mhm. ma ne ko waa loolu moom vraiment dinañ ci waxtaan. mais ñi ngi sant yàlla bu baax. mais tey président bu lay wax loolu. ak équipe am. di la encourager di la ñaanal. munoo lu dul ñaanal ko yàlla loolu mu lay encouragé bu déwénee nga ñëw na ko kat li nga ma daan wax mm-hmm. bëgg naan bëgg nañ ko def mee ci nii ak nii nañ ko bëgg defee tey làmb ji mention spéciale làmb est-ce que xam nga li ma jot a remarqué bilan wu CNG tey bi saison làmb amee ba tey ji ngi door a am bilan bu toll nii ci baaxaay ñaata mercredi ñoo fi am làmb man rek tëgg naa quinze quinze mercredi ñaata jeudi ñoo fi am làmb bari na fi ah bëri na ñaata mardi fi am lamb <laughs> bëri na saison bi tey moo wax la benn affaire yaa ko wax léegi saison bi ibéegul te tey gis nga ni ñaa jël dat yi est-ce que dat yi ya sax est-ce que dimanche moom est-ce que dooti yomb fi mu man déjà ba ma ko ne damaa bëgg ibir len mi ne ma ah waaw d'accord après nga ñëw ñu xool mais affaire yaa ngi avancé dat ngay dem nag ngay dem xam nga loolu tamit vraiment bu amee mhm. gestion bu baax moo nit ñi di ko soxla mhm. su baaxuloon ñëpp dinañ taxaw wax bëgg posu nit ki doomu adama bu mu tax nga nga nga yàq liggéey yow kay ñëwal rek def encouragé te xam ni su ma ñëwee ma def lu raw lim def mais nga bëgg ko xajamal bëgg wax ne daa gis ñuy wax ci am ñu bëgg postam ah dafa am ñu di wax ne dafa am dafa am ñu bëgg sax te ñiy wax mënuñu ko sax hmm. ñiy wax mënuñu ko man boog sama xalaat laay wax mënuñu ko mënuñu jël place buñ ko remplacé tamit da nga jàpp duñ fa def résultat mënuñu ko man lenn rek laay conseillé bira hmm. gis nga ñoom grand zal yi waaw na leen sélectionné ñëw teg leen ci wetam ñu nekk ay boole leen nekk ay conseil ci lam ñii dañoo baax ci làmb ci organisation bi ci lépp ñii dañoo mérité loolu man loolu laa gis am na ci ñoo xamante ne bon yàlla may na leen ay âge mag lañu xaw na ñoo jël âge. Mhm. ñu bàyyi leen ñi nga xamante ni ba tey seen kattan seen xam-xam. Mhm. seen vision mi ngi am ay kii. Mhm. ñu indi ko grand li li muy développé fii ci làmb mais est-ce que xam nga am na ci yoo xam te mën na ko développé ci CNG de lutte waaw loolu di njëriñu làmb la mhm. man bu ma ko doon conseil loolu la ko wax pour mu dolli ko mhm. mais toog fële wax ni ay ñii ñu fi dara dañuy dagg mbëri dañuy def lii dañuy def dañuy dagg mbëri buñ la daggee loo def bañ dagg la te mbëri ndaw yi sax dañ leen di dagg làmb ji kay kuy bëree mais mbër mu am cachet cent mille francs mais bu ñu ko daggee dix pour cent dix mille la ka am million ko daggee cent mille boo fi bàyyee million bu ñu ko daggee loolu un million la. kon dagg bi mi ngi yem ci ñëpp parce que cachet yi ñoo bokkul. te tey man gëm naa ni am na ci lu bëri loo xam te ñoom dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko oyofal. ba situation bi demee nii. mais man gisuma sax ñu changé li fi nekk man mu gisuma ko. gisoo ñu changé gisuma ko li ma gis daal mooy nañ leen fi bàyyi. Bira ak équipe ñu liggéey doxal làmb ji mu jëm kanam. ñu liggéey doxal làmb ji loolu laa gis. mais Ousseyn bu ma la laajee par rapport ak euh, li nga wax ci ay journée wala li nga wax ci ay mbër parce que trois cent litres du ay caaxaan grand salle hmm. boo leen doon